dañuy sant gërëm association femme visionnaire bi nga xam dafa nekk ci commune Dieuppeul Derklé te seen njiit di présidente bi di Adja di Diop taxaw ni ñu ay jigéen yu am jom ay jigéen yu takku ba ñu juddoo ba léegi ci lii laa leen xam luy jëmale jigéen kanam luy jëmale seen gox ci kanam lu ñuy def ba nit ñi bokk ndey bokk bàyyi di yëkkeetandoo du dóorandoo moo tax keroog bu ñu ma wooyee ne ma monsieur le maire kat dañu nekk ci réunion mais dañu doon xalaat naan naka la ñu mën boolee suñu doole ba am lim bu takku moo xam euh, savon la moo xam euh, eau de javel la moo xam lave-mains la lépp li nga xam ne jumtukaay la ba ñuy utiliser pour set loxo yi set ba ñu mën fagaru ci jàngoro bi ñu nga xam ne mooy coronavirus ñu ko def ñu amoon yéene nag def ko tey ci bis bi di aljuma ñu def ko léegi ni ngeen ko gisee ni nag lii ñuy joxe. dañu bëgg mu àgg ba ci daara yi dañu bëgg mu àgg ba ñi nga xam ne néew doole ñi naam bëgg nañu set waaye amuñu ñu jox leen ko pour ñoom ñu mën ko jëfandikoo ba jàngoro bi bañ a agsi ci ñoom ñu di leen si sant di leen si gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na leen yàlla kattanal yàlla na leen yàlla doole lu ñu mën ren yàlla na ñu mën lu ko ëpp dëwën yàlla def jàmm ci seen diggante ndax association bu jariñaa la man maa ngi door a gis lu nu mel ay jigéen yu takku ñëw ni lii ñu am dañ la ko jox pour nga jox ñu ko maa ngi dóor a gis muy lu rafet loo xam ni képp ku bëgg lu rafet war nga roy ci nii roy ci lii ñu def te teg du guleet saa su nekk démb ak bërki démb saa yu ñu dajee rek ci luy jëmal gox bi kanam la ci luy jëmal nit ñi dëkk ci gox bi kanam la kon nag euh, lii ci sama tur ci turu conseil municipal ak askan wi yëpp ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen wax ni lii ngeen def yàlla gis na ko yàlla mi nga xam ne moo mën a fay leen yàlla fay. yéene ñu ci am yàlla na ko suñu borom matal ba jàngoro ji dégg rek lañ ci am ba mu xëy fay abadan kenn dootu ko dégg ci réew mi mais jëf lu joo xam ni ba àdduna di tukki kenn dootu ko fàtteti ne jëf yu mag yi nga xam ne jigéen ñu mag ñi démb dañ ko def bu ñuy wax Linguère di wax Aline Sitoé di wax maam Fawa Diwele aw la maam Diarra bus ci jëf yu mag yi la waaye jëf ji jëf ju mag la jëf ji tey jii fay na. julli ajuma ak xadara yi nga xam ne waroon na am te feebar bi tax kenn ubbiwul juma yi barke bi ci ajuma ak xadara yàlla na ko suñu borom wàcc ci jigéen waaw ci rek euh, naka ngeen jëfandikoo donc. xam nga ñoom nag dañ ma doyloo ba nga xam ne léegi maa ngi naan présidente bi faw ñu wut organiser xool naka lu ñuy demee jébbal lii ngeen joxe ña ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo mu ne ma noo def rek baax na manu ko déet dañu àndandoo dem jafe ko parce que nit ki buy joxe yéene mooy fa mu ko bëggee mu àgg fa ndax mën na bañ dépendre ci moom wala mu dépendre ci man sax keneen mu koy mën na ko gis rek du xam lu ko fi indi mu jël ko yóbbu wala mu muy kii léegi rek laata ñu pare am na ñu mooy woon naan ma ñun de soxla nañu ci li ñuy raxasu mais lii dafa am lu ko tax a jóg ñaka tax a jóg nag na àgg ci ñoom bu desee ñu xool ñeneen ñoo xam mën nañ leen ko baaxee mais ña ko tax a jóg mooy daara yi ña tax a jóg mooy béréb yi ñuy jàngee alxuraan dafa julli dafa jaamu yàlla ak béréb yi nga xam ni dañ fay fajoo ku fa ñëw duwul wàllu boo ñëwee fekk fa lu nu mel looloo ko tax a jóg ci ñooñu la ñuy jiitu d'abord ndax loolu mooy seen yéene bëgguma mooy seen yéene ñu ko yéenee fas yéene ko defee yàlla nañu yàlla dimbali bu mu àgg ci ñooñu jëf ji nu mu réyee yàlla na yàlla fay leen jëf lu ëpp loolu barkeel leen te barkeel lépp lu ñu lal. maa ngi tudd Khadijatou jot di présidente les femmes visionnaires dañu ñëwoon nag tey fii ci mairie jëppal Derklé fekk si sunu maire bu baax bii di monsieur le maire Cheikh Gueye di maire boo xamante ne comme ni ñu koy waxee rek maire maire maire commune muy maire boo xam dafa jàppale jigéen ñi loolu moo waral sax ñu am xalaat bi macha allah comme coronavirus dafa dugg ci dëkk muy jàngoro boo xam dafa jaaxal àdduna jaaxal ñëpp macha allah ñun ñu def ay jigéen doon yaay. ñu ne fagaru bala ngaa lakkale olof Ndiaye waxaat xoddeeku bala ngaa lakkale fagaru bala ngaa faju loolu moo tax ñu am initiative bi am xalaat bi comme ñun ay jigéen lañ eh, ñuy ñaan rek mu yem fi képp rek ñu ñëw ak sunu lu ndaw lii ñu xeeb ko trop eh, di marqué sunu tuus rek ci eh, corona bi comme ni ñu koy waxee rek macha allah di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yemale ñu andi ko nag xeeb ko trop ñëw andi ko pour mu dem ci comme ni ko monsieur le maire waxee ci néew di doole yi ak ñi ko soxla ndax ñu xoddeeku bala ñoo fagaru bala ñoo faju macha allah loolu rek moo doon euh, xalaat bi euh, ñi ngi sant ñëpp nag di remercier femmes visionnaires yi ma àndal xam ne lépp ñoom la macha allah xalaat bi ci ñoom la jógee lépp ñoom la daal macha allah di kontaan ci ñëpp jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen.